loi bu tëralee dara ñu ñu maanaam am koo xam daf koo jalgati ba loi teg ko yoon ñu dem di manipuler ay xalif généraux kooku ba tey njuumte la parce que xalif généraux li ñu leen wax mooy dañ ñu leen dafa am euh, loi yoo xam si ay noonu islam ñoo ko fi tëral ñoo fi tëral parce que nguur bi dañoo dañoo dañoo bañ alquran bu ñu leen xamalee loolu ca mag ñooñu ci ay mag xamuñ loolu dañuy jël dañuy attaqué te te ba nguur gu mos a taxaw ci Sénégal rek dañ naan day xeex daara te nguur guy xeex daara amu fi xeex daara parce que ay jullit ci nekk ay jullit ñoo nekk ci daara yi kooku ni ni gouvernement bi dañuy xeex daara loolu moom lañ tamal ci nos nit ñi moom lañ yàgg dégg te loi moo ëpp doole xalif général te li nga xam si moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax réew xalif président de la république nous pour pouvoir xalif général te la république nous nous alors imam nous sommes euh, vers vraiment la solution on a beaucoup parlé du problème Euh, donc un projet de modernisation d'art euh, est-ce que nous pour mooy indi solution bi parce que coow li il faut reconnaître que yàgg na fi daaw da mm. est-ce qu'il ne faut pas aller vers modernisation daara yi ak naka lañ koy defee am yu nekk en cours ci xibaar yi tey rek mujj naa ci dégg nii am na fanweer ak juróom su ma juumul ci yu ma euh, dégg yoo xam ni déjà c'est en cours est-ce que c'est la solution ak naka la nar a demee modernisation bi moom bu ñuy wax modernisation mooy noo xam ne dina ko méngoog jamono mm. nii mais ana lan moo ci lan moo ci war a jiitu dafa mel ne ñu ngi woon ci yoon bi parce que mënuñoo moderniser daara te jëlewuñ fi ji mais seen daara yi ni ma gisee ñoom ñëpp d' accord nañ ci dañoo war a moderniser daa moderniser daara mais nag ñoom ñëpp liñ wax benn baat la ñu jéng dafa war a continuer te man li ma doon bëgg te di ko ñaan ba léegi mooy sëñ xaadim ñu jéggal ko bàyyi ko may ko liberté parce que dafa juum xaadim du ko bon borom maanaam euh, jublu na alxuraan am na ñu mokkal mm-hmm. taxaw waaw mooy nan mooy moom ci boppam bëgg gi mu bëgg a taxawal boppam. tax na daf bëgg a évancé maanaam kaddu xalifa général kaddu xalifa général te pourtant moom Cheikh Lamine Sall lu jóg rek dana ci wax te bu waxee bëgg nañu déglu ko. waaw moom xalifa la ci kër gëm ne wala même bu fa newut xalifa bokk na ci xalifa yi nga xam ne war nañ faa doon xalifa waaw léegi moom kàddum su fekkee nga xam ne xalifa général yi amuñ kàddu kon moom warta am kàddu beneen bi wax ji muy bëgg a wax ne maanaam xalifa général yi dañ leen manipuler mu mel ni xalifa général yi ñoom dañoo amul xel kon loolu duut wax joo xam ne sax teggeenu na parce que bu dee euh, Cheikh Muntaxa mi ci wax kuréel ba demoon ci moom di wax lañ ko wax kàddu gam yëkkati rek la mën a yëkkati ndax si Ahmadou Bamba de ku ko xam xam ko alquranul karim dundam lépp alquranul karim la njabootam mu yar leen ci alquran yar leen ci daara njabootam di bind ay kaamil ay taalibim di bind ay kaamil ba tey boo demee Touba rek ngay fekk barab bi ñuy tuddee daaray kaamil la fa nekk ci ay kaamil yu ñu loxo kenn xamut nuñ toll kon bu téere yépp lakkoon tey maanaam téere alquran yëpp bu ñu lakkoon tey soo demee Touba fekk fa téere yuñ bind ak loxo ñaare ña leen toppandoo bëri na am na ñoo xam ne dëgg la amaane jiitu na ñu doon ko def waaye li mën a am daal mooy xidma bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba liggéey na ko ci ak njabootam liggéey ko ci ci bind kaamil seeni ndongo di ko ci liggéey ba tey loolu wax dëgg yàlla ku ne war na leen ko seedal te nangul leen ko kon bu ñëwee ci ma wax ko jëf ju mel nii war naa yëkkati kàddu gii mu yëkkati kàddu googu mu ndongo yëpp daf ñoo doy wëllis ñuy soxla leneen ñun ndongo yëpp kàddum googu daf ñoo doy ndax suñu kilifa la moom moo gën a nekk suñu kilifa président Macky Sall beneen bi ci des wax na wax joo xam ne ju juuyoo ak dëgg la mooy wax jan mooy mu ne réew benn benn benn baat lay am déedéet amul benn dëkk ci àdduna bi boo xam ne benn baat rek fa nekk di fa woy déedéet wala boog lislaam boog xamul loolu makkatul mukarram ba yenentu ba doon nekkoon gàddu woon raayaay lislaam di ko doxal pénc ma am na beneen kàddu gu fa nekk noonu bu bokkut ak kàddu lislaam waaye tamit madinatul munawara ba nga xam ne fa lañ denc yenentu bi sahaaba yi uutu ko fa Seydina Aboubacar ne fa Seydina Omar ne fa Seydina Ousmane ne fa am na geneen kàddu gu fa doon def bu bokkut ak kàddu lislaam adduna bi am na kàddu goo xam ne bokkut ak kàddu lislaam bu fekkoon ne nag réew mi maanaam attey lislaam moo fiy dox constitution bi nga xam ne moom la ñuy doxal mu nekk constitution boo xam ne lislaam moo ciy dox konoon suñu kilifa diine yëpp danañ appuyer loolu nangu ko waaye est-ce ñoom seen ak bañ ko mën naa jëriñ ba tax nguur gi la ñuy taxawal ñu bañ koo taxawal déedéet waaye am nañ droit nag buñ ci attee boole ci waa boo xam ne ñoom d'accorduñ ko ñu yëkkati seen kàddu na d'accorduñ ko bokk na ci lu mel ni góor jigéen kenn du ko laal ci réew mi kon Lamine Sall yaakaar naa ne buy jéem a wax ci daara di wax ne maanaam eh, kii di def lii kii def lii mooy xaadim dañ koo dafa tooñ loola njuumte la moom Lamine Sall moo ñu bëgg a moom moo ñu bëgg tooñ mooy lan mooy xam ne li muy wax maanaam awut yoon li muy wax nekk njuumte la lu rëy sax loo xam ne su amoon suñ bañoon a wax baat bu gën a ñaaw njuumte la danañ ko wax mooy jéng bokkut ci daara ah kañ kon moom xamut daara kon moom xamut daara waaye bu fekkee ne xam na daara jéng bokk na ci daara daara ji ma nekkoon doon jàng kër Sàmbakuta borom daara ji da doon jéng bay jéng doomam ma xam ci dara jéng kiñ koy def ndax jéng dañ ko faa teg ne képp ku jaar ci daara ji dañ la jéng déedéet jéng lu tax ñu teg ko ci daara ki nga xam ne tey maanaam dafay dafay dafay dafay def ay toj-toj ci daara ji di génn di di def taxawaalu ci daara di def lu ko neex nanguwut a jàng ci biti balaa ëllëg ñu koy delloo ci karbaayam muy nekk agresseur ñu koy jàpp di ko tëj ñu koy jàpp di ko manoto di ko eew di ko dugal ci biir kaso ñu jéngaale ko ci daara ji xamal ko ne ko lii kat bu ñu lay jàngal la parce que am na qaanuun boo xam ne boo ko dajjee ëllëg dinañ la tëj waaye fii nag daara ji la kon daara ji dafa am ay règlement yi boppam jàpp naa ne même bu ñuy moderniser daara yi daara dafa am règlement boppam mooy daw ci daara lañ ko fekk mooy daw jàng ci daara lañ ko fekk kii daw jàng suñ bañee mu daw jàng ñaara mën a am faaw ñu tëj ko te loolu alquran bañu ko lan moo tax alquran wax ne jigéen ñi nga xam ne dañoo ragal ci ñoom ak foñu nañ leen waar nañ leen tëj ci seen néeg yi bañ ñu génn pour lan loolu lan moo tax ci dégg nga xulafaa raasiduuna yi ba ci jamono euh, ñoom Abdul Malik ibnu euh, dégg nga ba ci ñoom jamono Amar ibnu Abdul Aziz képp koo xam ne danga nga defoon loo war ta def te it nga nekk borom orma dañ lay tëj ci sa kër nga ne bul fa génn ngir lan bañ àtte mbir mi. kon daara dëgg dëgg dëgg yàgg na ak jéng waaye nag jéng du ne ku ne ci daara rek dinañ la ko def kenn ñeen ñenn la ñuy jéng ci daara te gis nga ñenn ñooñu ñooñu ñuy jéng ci daara. jikko yi muy génnee ci ñoom jéng gi ñu leen di jéng ak tëj gi leen di tëj loolu mooy waral kenn du leen tëj buñ génnee ci daara loolu mooy waral kenn dootu leen jéng buñ génnee ci daara ndax yar bañ cay jëlee ak teggin bañ ciy jëlee am na koo xam ne alquran jiñ bëgg a def ci moom wax naa ne moo aajo woo ñu jéng ko wax na léegi benn laaya inna sa nulqi alayka qawlan saqilan yàllaa ko waxoon yonent bi waaw yonent bi salaay salaam mii sang mbindeef yi gën a foor ñëpp gën a màgg ñëpp alquran karim nekk qawlan saqilan ci moom ba jibril di ko ko jox di ko wax iqra di ko buntu xatal di ko xoj comme ni ko téere yi nettalee naan ko jàngal mu ne ko lan lay jàng wala man duma jàngkat ak coono ba mu ca daj ñu wax ne alquran bu daan wàcc ci yonent bi dafay ñaq ñaq tooy dégg nga ba nga gis ñaq baa ngi sotteeku ñu bëgg koo dugal ci xale boo xam ne juróom-ñetti at la am juróom-ñeenti at xale boobu il faut mu daj fitna il faut mu daj coono mun ta nekk mun ta ñàkk xale boobu suñ ko nabb nabbee ba dugal ci moom alquran te coono boobu amut ko alquran jooju dafay teel a génn lool loolu moo tax ñetti mbir nangeen ko bàyyi xel ki mokkale ci daaray alquran ji nga xam ne dañuy jëng ji nga xam ne dañuy dóor ji nga xam ne dañuy pini bokkut ak ki mokkalee ci daara internat bi nga xam ne dañ lay jox lekk ba suur nga naan ba màndi nelaw ba doyal jàng heure yi ngay jàng duñ bokk benn yoon kële alquranam ji mooy gën a barke benn ñaareel kële alquranam ji mooy gën a mokk booleen leen boole ci kër duñ nekk benn ñeenteel bi kële mën naa tiimaat kaamil bi bind ko ba mu jeex takk te kii moom boo ko joxee xel ba ne ko bindal bisimilahi rahmaani rahim sax mënu koo bind la moo tax mooy jàngut ko woon kii kon ñaar ñii mënu ñoo yem